barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare euh, di leen nuyoo nag ci kàddu soxna Aida Saliou moom Serigne Béthio mu ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Mbacké ibn Serigne Saliou mu yàgg fi lool moom it te ànd ak wér buntam ci Serigne Saliou mi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp te di leen yëgal ni kàddu yi dafay sori waaye su fi nekkoon mooy jàkkaarlook taalibe yi waxal leen ko boppam kàddu yi nag weesuwul ndigal li nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa digle ci màggal gi nee na mi ngi koy yeesalaat ci mbooleem kum àndal te di la wax ne lépp loo xam ne sëriñ bi digle na ko mi ngi koy yeesalaat ci taalibe yi tey digal ñëpp ñu tënku ci waaye lépp loo xam ne sëriñ bi tere na ko nee na mu ngi koy fàttaliwaat bi yëpp tey ñaan ñëpp wattandiku loola te sori loolu te di yëgal ñëpp ni moom day ci li mu ne mooy ci li nga xam ne moom la sëñ Muntaxa digle ci ñu tërale ko màggal gi fas yéene wu cee yokk darara te fas yéene wu cee wàññi dara ngir dëppale ko ndigalu sëriñ bi ak bëgg-bëggu sëriñ bi loola nag bokk na ca mooy col colin bi mooy colin gi foofu ci dëkk bi ndax naka jekk loolu moom ndigal la loo xam ni du puus te du randu kon mi ngi yeesalaat ndigal loolu waaye bokk na ci nag li nga xam ni moo ci spécial muy màggal gii ñu nekk ak contexte bii ñu nekk loola nag dafa tax ay ndigal yu yees wàccaat lu mel ni di takk masque foo waaye lu mel ni distance distanciation yi muy di s'orienter lu mel ni benn rassemblement muy mbooloo ndax contexte bii ñu nekk permettre loolu kon nee na mi ngi fàttali mboole mbokki taalibe yi ndigal loolay waaye bokk na ci it lépp loo xam ne tere na ko rek nee na tere yi moom ku ne xam na ko lépp lu tere rek nañu ko wattandiku te xam ni moom day moom soxna ay Aida Saliou ci loolu la ne li ci des nag moo di màggal gi kat ci lii la tënku mooy di rendi tey bernde waaye njàngum alxuraan mi nee na mi ngi yeesalaat loolu ci taalibe yi ñu gën koo fanoo te gën cee nekk naka jekk nag njàngum xaside yi itam yi nga xam ni ci lañ mësa ne nee na mi ngi yeesalaat loola te di ko digalaat taalibe yi te ñu gën ci sóobu te gën cee nekk tey rendi tey bernde ni ko Serigne tubaat digle nee na loolu yi lépp nag bu nu ko dajee def ko ñi ngi koy dëppaleeg nag ni ko Serigne bi bëggee te loolu kat moo di taalube ba tax na mi ngi yee salaat loolu dafay sori waaye bu fi nekkoon moo koy waxal boppam kon nee na taalube yi bëgg na kenn ku ci nekk nga dégg kàddu gi te gën cee nekk te xam ne moom day soxna Aida nee na moom ci loolu la ne li Serigne bi digle ci la ne. li sëriñ bi tere mu di ko wattandiku te di ko wattandiku wattandikuloo képp koo xam ne rek yaa ngi déglu kàddoom kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi koy ñaanal moom soxna Aida mu yàgg fi lool te ànd ak wér